élection euh, Calze euh, defe naa sa moroom yi euh, ñu ngi ci ñu ci ñu ngi ci ñu ngi ci internet bi. Mhm. ñu ngi àndandoo ak ak candidat yi. comme mhm. quoi élection présidentielle yi moom ça intéresse tout le monde waaye yéen ngi ci bu baax yéen xale yi. bien sûr ñu ngi ci mouvance boobu présidentielle comme ni nga koy waxee et rawatina bu atu 2019 bi parce que ci jàngat bu ndaw boo xam ne def nañ ko bi loolu di tàmbali ci ndaw ñi mi ngi nekk bi ñu gis seen taxawaay bu baax a baax ci élection wala ci lu jëm ci présidentielle tàmbale na atu 2000 jëm 2000. 2007 ak 2012 di ñetti euh, élection yoo xamante ne ndaw yi dañ ci am taxawaayu rëy ci euh, étude bi nga xam ne sax jot xool nañ ko ci euh, ci internet bi bokk na ci âge ci toll ci 18 ans jàpp 18 ans jàpp 35 ans seen taux de participation gënoon am doole ci atu 2017 2007 plutôt bi nga xam ne doon nañ def ay élection présidentielle ñu jàppoon ni 25 ans 25 pour cent sax ci ñi nga xam ne ñoo doon ñoo demoon participer ci élection yooyu la ñëpp ay ndaw lañ ça veut dire que loolu bokk na ci li annoncé tey euh, ñu am ay engagement yu bëri ci euh, wàllu politique ñoom ndaw yooyu euh, ba sax ngay gis ay candidats yoo xam ne dañuy nekk xale loolu ñu ngi ko tàmbalee gis ci Cheikh Bamba Dièye à l'époque en 2012 gis ko également ci at yi nga xam ne moom la ñu nekk ki ki qui veut dire également que léegi muy politique muy ndaw di mag léegi ndaw yaakaar naan ils sont très conscients ci li nga xam ne moo di lu jëm ci wàllu élection surtout nag ay élection présidentielle artu bi nga xam ne nag ñu ngi ko ciy def bi ndax ci euh, jamono yi ñu nekk muy campagne électorale yi ci lañ leen di gis euh, ñoom ñuy génn di ànd ak ñoom boo xoolee mbedd mi ful bi nga xam ne ñooy topp candidat yooyu le la plupart ay ndaw lañ ndax ñoom ñooy mën a topp seen oto yi di daw ñoom ñooy mën a ñëw ci meeting yi donte mag ñi sax dañ ciy ñëw euh, mais ndaw yi ñoo ciy gën di nekk donc li ñuy sensibiliser encore une fois jeunes yooyu euh, mooy ñu moytu lépp lu jëm ci wàllu violence ak ay jàppante ndax yaakaar naa ci wàllu information sax la la semaine dernière wala ci semaine bii ñu nekk ci kenn ci candidat yi gis nañu amoon ay jàppante diggante ay ndaw Euh, yoo xam ne xewoon na fële ci Saint-Louis te lu mel noonu dañ koy dañ koy dañ koy déplorer di ko di ko ñaawlu ndax nekk ci ay élection tamit taxul ñu war a nekk ci ay fitna mhm. donc euh, li ñuy ñaan rek mooy bu ñu yeggee ci bës bi nga xam ne ci la ñuy tànni euh, njiitu réew mi ñu def ko ci ci dal et surtout jël seen carte yi nga xam ne moom la ñuy wooye ne carte yi mooy seen arme ci bés boobu mhm. bu ñuy sanctionné ñu sanctionné bu ñuy jàppale aussi ñu jàppale ce sera incha bi nga xam ne ci la ñuy tànn njiitu réew mi n'est-ce ndaw yi moom loolu lañ leen xaaree parce que boo xoolee euh, campagne bi électeurs yi bari lu ñu toll ci 6 millions boo xoolee trois quarts yi ñu bari ay ndaw lañu ñu fas yéene joxe seen décision ci euh, joute yi ñu jëm muy euh, février prochain. Mm-hmm. comme ni ko waxee rek ndaw yi am nañ ci taxawaay bu am solo déjà nous avons une population de jeunes boo xoolee de la population ñoo xamante ne. ndaw lañu waaw yéen de <laughs> presque yéen ngi ci yéen a ngi ci fële troisième âge. <laughs> waaw ci baat am nañ ci baat boo sànq yaa ngi wax candidat yi. son donte bu ñu seetloo ni ki ci gën a nekk daw di euh, Ousmane Sonko am 46 ans. moom Ousou na ci ñi nga xamante ne a ñoo ci gën a am ci candidat mais loolu loolu xaar parce que boo xoolee. monde bi léegi boo seetloo président yu bari. wala ñi nga xam ne jeunes disent Sonko président Sonko xaaral moo ko dàq sa balaa muy génn sama génn Sonko. moo di wane ni loolu di wane ni ndaw yi am nañ ci ci wàllu ndax bu ñu demee ba <laughs> ndaw ñi nga xam ne judd nañ après l'indépendance wala ñeneen ñi nga xamante ni vraiment mm-hmm. euh, depuis 1960 ba léegi xamuñ xamewuñ leen ci euh, espace politique bi mm-hmm. ndaw yi gën jouer les premiers rôles maanaam tax nekk au la scène mm-hmm. di wane seen baat tamit bokk nañ ci ñun réew mi boo xoolee ñun ñoo fi ëpp ñi bokk nañ ci ñi xëccoo xëccoo réew mi te et puis tamit comme sànq euh, Pape Djibi ñu ko doon waxee bari na ci actuellement ñi nga xam ne seen programme ñu fësal ci bu baax ndaw ñi ndaxte boo xoolee ñàkkum liggéey gi formation dafa nekk lu lu am solo parce que loolu tamit mooy définir li nga xamante ne mooy euh, avenir réew mi te loolu lu am solo la donc ndaw yi dañ ciy jouer rôle bu am solo boo seetloo depuis 2000 ak bi nga xamante ne événement bi nga xamante ni Abdoulaye Wade moo jëloon pouvoir gis nga ndaw yi ni ñu euh, bu njëkkoon dañoo foogoon ne ay ay rek ñoo amoon euh, droit voter wala mag ñi rek waroon a voter léegi loolu nag deñ na je pense que ils sont très conscients ci loolu que ni ñoom ñoo war jëlal seen seen avenir comme ni ñu koy waxee en main euh, pour mën a décider donc li ñuy waxaat rek encore une fois duñu euh, taay di ko wax moytu surtout violence boobu alhamdulilah que at bi wala ci élection yi dégguñ ci ay musiba yoo xam ne doon nañ ko seetlu en 2012 euh, biñ koy waajal en 2011 mu am ay comme ni ngeen koy gisee ci semaine bi weesu sax ñu ngi ko doon wax di fàttalikuwaat ñi ci ñàkkoon seen bakkan mhm. qui veut dire que nañu moytu violence yooyu bu ñuy manifester sax ñu def ko ci dal pour waajal élection yi gens sont restés traumatisés par élection yi nga xamante ne moom moo fi jógee euh, conséquences yi si am yëpp dafa ñun candidats yi pare nañu lépp waaw pare nañu lépp bàyyi na <laughs> na donc euh, nit yi dafa am benn souvenir boo xamante ne élection yi daf leen ko bàyyi boo xam ne euh, yaakaar naa ni képp kuy sénégalais bëggoo mu amaat parce que même bu fekkente ne nekkoo woon nekkoo woon au niveau du Sénégal sooy seetaan journaux yi nga xamante ne mooy journaux yi ngay gis à l'extérieur yow tu as l'impression que le pays mi ngi nekk di exploser dëkk bee ngi tàkk dëkk bee ngi toj mhm. ne gisee sa yaram day daw ay maires yu ñuy dóor fii mhm. ay jeunes yu décédé donc loolu mhm. amul benn sénégalais bu bëggaat ñu reprendre la même chose donc de ce fait parfois da ngay dégg sa nit yi di ne euh, dëkk bi dafa calme trop on mhm. dirait même pas qu'il y a des élections mais là je pense que tout le monde a décidé bu ko wax fii Habib Dione tata pii <laughs> <laughs> bu mu saf kaani ci <laughs> àdduna bu mu saf kaani ci àdduna li nga wax baax na li nga wax baax na donc ah, yaakaar non non dëkk bi safagul poobar quoi bés bi sax poobar yàlla na tombeeg mitig mitig bi nekk seen buntu kër xam ne nit ñi dañuy daal di wutali seen biir kër yam ci yéen poobar def taari beeg ma xaw ma lu ah nit yi xam nañu ne ils ont le hmm. pouvoir ils ont actuellement soxlawuñu génn ci mbedd yi di dóorante wala quoi que ce soit <laughs> pour que élection yi jaar war a jaaree na ku nekk voté jour bi rek ñëpp nekk ci jàmm poobar beeg kaani bi yem. man personnellement kenn du ma xamal dara ba le jour ji ma dugg ci bañ gàcce bi. tànn ki ma war a mais tout le monde ñëpp noonu lañ koy defee. comme li nga doon wax maturité. nañu maturité bu toll noonu. vraiment sénégalais loolu man mm. aw ma ci sax lu may tiit ak lu mm. may ragal. dëgg la man pense que sénégalais yi am nañu ci maturité bu toll nii. Mm-hmm. ay campagne électorale la que ça soit mu nekk présidentiel wala décision yi fan lay jóge ci urne yi lay amee mhm. te boobaa bu bis bi jotee dinañ dem def euh, ndekki ba suur mhm. dem voté ji bu delluwaat seen kër na añ naan ataaya waxtaan ñu continuer ñu joxe résultat yi ñu avancé xool nan la ñuy évoluer réew mi nan la ñu mën a def ba nga xamante ni gañe gañe ñu et puis ñi nga xam ne mën nañu ñu jàppale ko mhm. ci ñu liggéey te foofu la xaar jeunesse bi tamit parce que boo gis am na benn jeune bi soxla loolu soxla si Sénégal déterminé di mm-hmm. xool nan ban programme la ñu nan la ñu a def ba réew mi avancé je pense que objectif yi benn la mm-hmm. ku nekk peut-être mën nañu bokk ñu ay yoon yu ñu jëm parce que mm-hmm. mais objectif bi mooy développer le Sénégal je pense que loolu waruñu ci waruñu a réew c'est important ah. merci Kal c'était une petite parenthèse ak sa moroom yi xale yi ndaw ñi